soo bëggee publicité gaawal gaaw nga woote ci si numéro bi 77 254 84 39. dem géewul giseeg yaay Latir lu ma sawar lay doon ndax ku ma xam la. Mhm. ndokk yàlla de sama sama sama xarit la. Hmm. jëflante ma ak moom yu baree baree bari jëflante naa ko ak moom. dëkk bi ndax yéen ngeen am na gan. dëkk bi gan. waaw a ah, loolu de yëgu ma daal dégg naa mi ci dëkk bi. Latir man. Latir men mu bàyyi jëwel nee nag daa meroo ak seen waa kër ñëw féete kër magum dëkk. magum dëkk. loo ci man yaay na ko def. ngir Latir dellusiwaat ci kër gi ndax Latir mënut a ñàkk yaay ci kër gi foo xam yaay demal loo mën a wax waxal ndax mu dellusi yaay. sa xel na dal loy tok jiwul ngeen ci baaj bi mu ñëw ñu root ñoo ñu wëgg fas fi toogaay amu fi de ma ndax dañ la wax ni la man fi roti fas dafa fay andi gis nga liggey bi dama leen ci jappale rek waye ay root ak yi wëgg andi ma fi ndax de nga ma dafa jek jek def liko neex dem magum dekk kër dem kër magum dekk kon man latir duma gëna gore ndax laytay budé wulib jamal maf ñaandu daf koy gën